jërëjëf mbokk yi bàyyi xel euh, Sénégo ñu ngi fii ci diwaan bu Touba euh, tey nag ñu am sunu gan bu seet si nañu tey fii ci bërëb bi euh, sëriñ Pape Seck lay wuyoo sëriñ Pape ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu sëñ Cheikh Bey. tey lan moo waraloon tànk yi fii ci Sénégo ci Touba. waaw tànk li ko waraloon mooy en tant que jiite bu ñu jiite. association bu ñuy wax fàddilu prévention teex yoonu jàmm nekk fii ci Touba di yëngatu ci wàllu sécurité jamono yi nag ñu gis benn xew-xew boo xam ne mën nañ ne phénomène la boo xam ne jot nañu ñëpp ñu bàyyi ci suñu waar ngir mu mën a jeex ci dëkk bi te mooy ay euh, xale yoo xam ne dañuy fréquenter li nga xam ne mooy secteur transport automobile muy garage saret yi ñaare ñuy jàppante ci lu ñàkk solo ba ay bakken di ci rot bu mujj bi rek gis ngeen Touba barki démboo Ndiaye am na benn xale boo xam ne ci benn gaare su saret ci deux 200 wala cinquante euh, moom la doon xëccoo ak benn moroomam ba mujj ko jam paaka ba mujj génn àdduna. Mm-hmm. yéen jamono ji lan ngeen bëgg. waaw jamono jii moom li ñu bëgg mooy euh, ñun ñi nga xam ne ay acteurs transport lan yëpp te d'ailleurs sax ñoo ngi ciy amal ay réunion fan yii yëpp ak association yi nga xam ne association charretiers yi Mbàkke ak Touba. ngir ñu amal benn campagne de sensibilisation bu ñu jullee ba noppi def ko ci gaarasu saret di nekk ci Touba ak Mbàkke pour gën a waxtaan ak xale yi ndax ñu li ñu gis mooy xale yi bëgguñoo bon ba ñu ñoo baax mais dañoo gisul ñuy wax ak ñoom te euh, comme que métier bi ñu nekk dafa nekk métier bu noble euh, il faut que itam ñu fekk leen fa ñu nekk ñoom xale yi ñun en tant que responsable waxtaan ak ñoom delloo si leen ba ñoo xam métier bu ñu nekk mooy métier lan ak naka lañ ci war a nekkee dëkk bi itam di tuubaa itam ku ne xam ne dëkk la boo xam ne njub la fi borom bëgg liggéey ak jaamu yàlla la fi borom bëgg kon nag bu fekkee ne am na ay xale yoo xam ne nekkuñ ci lool ci leneen la ñu nekk xëy na ñàkk xam dëkk bi wala ñàkk xam li ñu nekk moo tax il faut que nag ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom delloo si leen ba ñoom ñëpp ñu xam ne dëkk bi ku ci nekk da nga war a góorgóorlu sa kéemtalaay kàttan ngir nekk ci lu baax euh, rawatina itam euh, bu fekkee da nekk ci secteur transport automobile nga xam ne li la ci war indi rek mooy li taxoon sëñ bi euh, sàkk dëkk bi te mooy liggéey ak jàmm yàlla waxtaan ak ñoom daal ba nga xam ne daal ku ci nekk euh, di nga góorgóorlu boo xëyee nga xëy ci jàmm boo wàcc itam nga wàcc ci jàmm dellu itam ci sa kër waajur. Mm-hmm. mu mel ne gis nañ xale yu bari fii ci diwaan bi euh, ñu cëpp dañuy faral di tàggoog seen sago jàppoo ne loolu moo waral tey jii li nga xam ne mooy xew di xew muy ñaareel ñoo xamante ni faat na leen fii ci diwaanu Touba ci wàllum sareet waaw loolu nag ñu ngi koy wax waaye du ma ko dëggal duma ma ko weddi ndax man damay koo xam ne lépp lu may wax dama ciy teg sama bët dëgg-dëgg gisaguma li ñuy wax ci xale yi saret dañuy gens dañuy tux yàmba ñu ba dañ koy wax waaye man nag teguguma ci sama bët gisaguma ko kon mënuma koo dëggal en tout cas daal man li ma jàpp ne moo tax ñu di ko def mooy ñàkk xam parce que dëkk bi moom ku xam yooyu ñuy wax sax bu fekkee ne dañ koy def ku xam yaakaar naa dëkk bi ak ni mu mel réew mi itam nekk réew mu sell doo yàmba doo itam di dorogaw rawatina ngay gens wala euh, di def naka sulu noonu kon daal man li ma jàpp rek mooy dañoo amul ñuy waxtaan ak ñoom amul itam li nga xam ne mooy formation ndax euh, transport képp ku ci nekk dañ la war a former rawatina formation yi nga xam ne état bi mu ngi koy digle euh, jaarale ko li nga xam ne mooy arrêté interministériel bi nga xam ne génn na bu yàggul arrêté boobu itam bokk na ci li ñu bëgg a waxtaan ak ñoom pour ñu xam kuy dawal sa sareet lan ak lan nga war a maanaam wàccool ak nan ak nan nga war a mel yooyu yëpp itam bokk na ci li nga xam ne daal ñun euh, loolu mooy sunu rôle ci li nga xam ne mooy campagne bi ñu war a def. Ah, gis nañ ne euh, mujj gi nga xamante ne na nañu ko ñi nga xam ne fi la nekkoon sax doon faatu daan seen doole am ñu jub am ñu jubu tey ji jëlee nañu leen foofu noonu en tant que yow mu yëngu ci wàllum transport euh, loolu ban gis-gis nga ci am ak fu mu fekk ku jub ku jubati ku juba nga fa tey ñu àndandoo ñëpp dàq leen tey nga gis-gis nga am ci. waaw waaw loolu moom vraiment man d'accorduma ci. d'accord ma ci ndax bu fekkee ne itam euh, dañuy def fépp fu ñu euh, gis ku def lu jubadi ña fa nekk ñëpp ñu jëlee leen fa d'accord ma ci ndax gaara su sareet boo dem ña fa nekk ay taalibe lañ ay njaboot lañu yor am na ci gone yoo xam ne itam majeur nañ war nañu dawal sareet ndax à partir de quinze ans war nga dawal sareet te it seen waajur lañ ciy jàppale kon bu fekkee ne nag euh, dafa am benn gaara sareet boo xam ne am na lu fa xew ñu ñëw rek jëlee fa gaara ba jëlee ña fa nekkoon ñëpp. ci jamono boo xam ne président sax dafa jaaxle ci euh, ndaw ñi ni ñu takkoo ci réew mi kaar macha allah te amuñu ay xëy kon ma jàpp ne li warul mooy lu mel noonu avant ñu ko doon def ñu associé ñu ci ñun ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu secteur sécuritaire mardi bu nekk semaine bu nekk ñoo ngi ci rajo yi ñu ngi ci télévision yi di waxtaan ak nit ñi ci wàllu sécuritaire euh, ba nga xam ne ñun danañu dem kon waxtaan ak ñoom euh, conscientiser xale ya fa nekk. bi itam mag ña fa nekk ba ñu gën a jël seen ay matuwaay gën a jël seen ay responsabilité waaye fekk gaarasu lëm ay nit ñu bari di fa dund wax dëgg yàlla di fa liggéey ay nit itam doon fa jële sareet di dem di doxi seen yitte ñu xëy rek tas ko noonu ndax am na kuñ fa jam kooku kooku faatu na loolu mu wax dëgg yàlla man en tant que koo xam ne doomi dëkk bi laa di yëngatu ci wàllu sécuritaire ak transport man boobu façon man d' accord ma ci daal d' accord ma ci. tey ji lan nga yaakaar na mooy solution bi ndax gis nañ ne ñu ci ëpp ñu ne ci sareet yi daanaka ay daanaka ci am 14 ans sax euh, bëriwut ñu gis ñëpp ay xale yu ndaw lan tey lan mooy solution bi ci ndaw ñooñu nga xam ne ñu ngi soobu ci wàllum sareet yi ban solution lañ ci man a jël ngir euh, li nga xam ne mooy xew mën a dakk ci dëkk bi. xam nga lii xew ni responsabilité partagée la commune am na ci wàll parce que transport domaine transfert la moo tax ñuy wax commission des transports. autorités yi am nañ ci wàll ñun ñii am nañ ci wàll kon li ñu jàpp ne moo war a am solution yi mooy nañu joxante loxo loolu nag euh, ñun démarré nañ ko ak le sous-préfet Babacar Ibrahima ak maire Abdoul Ahad Ka euh, jàppante nañ te li ñu bëgg mooy nañu fexe ba xale yi nga xam ne amuñu 15 ans te arrêté interministériel bi génn leen ci saret nañu leen génn ci saret nu mu gën a gaawee bu ñu appliqué arrêté interministériel bi rek lépp day saafara kon autorités yi ñoo ci des pour que ñu appliquer li nga xam ne mooy arrêté interministériel bi ñun ñi nga xam ne itam ay porte de voix la ñu dem ci borom sareet yi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen conscientiser leen ba nga xam ne arrêté bi dañoo war a wàccoo ak moom kon formation ak sensibilisation loolu lañu jàpp ne dara ëpp ko ci sol ak nag euh, defaraat li nga xam ne mooy secteuru sareet raxasaat ko ba mu ba mu bees tàq mel ni nga xam ne noonu la war a mel parce que tamit ñi nekk ci sareet itam di chef de garage yi am nañ ci part de responsabilité kon daal jàpp naa ne chef de garage yi nun commune le sous-préfet ak préfet département bu Mbacké bu ñu joxantee loxo jàppante jëmmal li nga xam ne mooy arrêté interministériel bi formé ñi nga xam ne nii ñooy ndaw ñi nga xam ne majeur nañ pour dawal saret organiser waat li nga xam ne nii mooy secteur secteur traite sa saret lépp lu ci banditisme itam ñu taxaw pour jëlee ko ci loolu daal bu ñu ko defee jàpp naa ne agression yi ak violence yi nga xam ne mooy am ci secteur saret yépp fi jóge mais secteur bi dafa bëri ay ñaawteef bëri ay yëf yu ci nekk te pendant des années kenn jugu ci kenn taxawu ci kenn defu ci dara loolu daal lañ gis ne moo tax lii am am waaye buñ ci jugee daal ñun ñëpp jàppante taxaw ci niñ ci war a taxawee dëgg-dëgg ni sëriñ bi bëgg dëkk bi bëgg ko transport bi lépp dana mën a jàppandi. taxawaay bi ngeen ci fas yéene am naka ngeen koy tëralee ci dëkk bi. waaw li ñu koy tëralee comme ni ma wax rek euh, mercredi incha allah bu ñu jullee ba noppi danañu dem ci garage su sareet yëpp waxtaan ak chef de garage nekk waxtaan ak xale ya fa nekk bu ñu jugee ci loolu jeudi dañu dem Mbàkke ànd ak waa Mbacke muy association des charretiers de Mbacke ñoom itam ñu ànd ak ñoom def même sensibilisation bi nga xam ne def nañ ko Touba. vendredi euh, ñu daje ci gare saret bi nga xam ne moo nekk ci poste contrôle bi ñu bëgg homme politique yi autorités yi chefs religieux yi ñëpp ñu ñëw fekk ko ndax borom saret yëpp dañuy ñëw maanaam chef de garage yi ak chef de garage su taxi yi ñëpp ñu daje ñu waxtaan ci ñetti ponk benn bi mooy violence yi am ci garage su saret yi même mi ngi am ci garage su taxi naka la ñu mën def ba mu jóge fi. beneen bi mooy arrêté interministériel bi naka la ñu mën a def ba jëmmal ko ñetteel bi mooy tax municipale yi nga xam ne ñu bëri dañ koy ñàkkal fay ba duñ ko fay te dañ ko war a fay nañ leen ma itam ba sensibiliser ñëpp ñu xam ne taxe municipale ko war a fay ñetti point yooyu daal lañ bëgg a waxtaane ci tee débat bi nga xam ne vendredi lañ koy amal di leen ci woo itam yéen waa Sénégal yi nga xam ne saa su ne lu ñuy def dañ ci ànd ak yéen ak ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu communication yépp ndax bis la boo xam ne daal bis bu ñu fonk la te ñëpp ñu seq secteur bi danañu teew ñu waxtaan ci ñetti point yi te buñ ci liggéey itam lépp lu ñu ca war a def rek ngir ñetti point yooyu lañ ci soxla ñu mën koo am insha allahu taala danañu nekk ci lool ba amal li nga xam ne nii moom la ñu bëgg amal violence daal dañoo bëgg buñ duggee ci jotaay boobu néew ñu dina jeex ci secteur u waaye dana ci wàññeeku bu baax a baax a baax a baax ndax danañ ci liggéey liggéey bu am solo kaar macha allah Uh-huh. sëñ Pape Seck waa Sénégal ñu ngi lay sant di la gërëm. waa maa ngi leen di sant itam di leen gërëm bu baax ci àndandoo bi. jërëjëf.